mbokk Samagal TV mbokku internet yi ñu ngi fii HLM première édition foire départementale de Dakar ñu koy def ak waa ASF ak waa sukkali jur gi tey ma taxaw ak euh, sama grand boo xam ne macha allah euh, tey fierté la ak satisfaction ma fekk ko ci goxam ak ci yëfam macha allah grand maa la nuyu. mais Cissé maa ngi lay fay euh, di nuyu. téléspectateur Samagal TV yëpp ak moo suñu mbokk internautes yëpp. di am mbégte nag tey dalal la. Ah, voilà dañ ñaan fekki dañ daan wàllu yaan si mais tey ñoo aye. macha mais la a kontaan Cissé maa la a kontaan. Ah, tey lan lan nga ci sukkal yow wala ASF nga def. ñaari maa ngi def jonction ñaari yi euh, ñaari association yi donc man lañ jiital ci lépp. donc euh, ne ma daal. Mhm. yaay suñu mag. Mhm. yow lañuy jital ah, am nga experience affaire yi uh-huh. donc euh, uh-huh. may prise euh, ki may prise ki dal ñaari association machallah allah donc ñu euh, man lañ jital wax deug yalla tek ma ci kalam wax deug yalla vraiment leen di gërëm ci geste bobu ñu def ak qualité bobu ñu am ci man vraiment ma am ci contente bu mag di leen kay delo ñom tamit Mm. comment a été avant ñuy dugg ci bergerie bi diggante ñaari association yi comme que yow yaa ngi woon ci diggante bi ba léegi. est yomboon na pour liggéey bi taxaw. waaw xam nga lépp ay mbébét la parce que bi defee suñu première euh, journée porte ouverte yi ñu defoon. mooy week-end d'élevage bi ñu defoon. si laa ci doon waxtaan un jour ñoom Pape Gueye bi ñëwee di visite ak sum benn xarit bi ñuy wax Abbas nekk waa Jëppal ak yooyu Liberté 6 ak yooyu. ma ne leen bon doon na baax euh, ñu dajale suñu ay doole def dara ñu ne ma daal loolu grand bu mënee nekk dina baax yàlla di dogal waa Médina di organiser seen foire Pape Gueye ñëw kër ga ak ñoom Moussa Traoré ñu wax ma ko ne dañu bëggoon bëggoon ñu teew ci daal moo ma proposé woon suñu association ma proposé leen ñu neen nañ def protocole d'accord entre ñaari association yi Donc, si nous avons une jonction des deux associations, Nous devons organiser. ont organisé, nous avons organisé, nous avons organisé. Nous avons faire un programme de foire, et nous devons faire un foire. Nous avons faire une deuxième foire. Nous devons un faire une foire. Si nous avons fait une foire, nous avons fait pourquoi pas nous élargir les associations qui sont Dakar parce que am nañ un bu ñu ci ci élevage légui foire yi bari na trop bu fekkee association bu nekk dee def foiram non seulement a am problème ci problème sponsor parce que sponsor yi mënuñu ko wootee ñu teew donc ministère de l'élevage mënuñu chaque jour ñëw teew ci cérémonie officielle donc qualité exposition est aussi dafay dess donc buñ ci nous ñu am ci terrain d'entente ñu daf ko ñu ko ko Euh, comment dirais je co-organisation ñu ñaar. bu ñu ko defee mais nag ñu dem seet yeneen association yi. dem nañu Wakaam dem nañu Yoof dem euh, xar yàlla ñoo ñëpp waxtaan nañ leen mais donc ñoom iri bi adopté nañ ko quoi vraiment xam nañ ni lii mooy njëriñu élevage te moo gën te seetlu nañu Dakar musul am événement. Dakar mosul am dafa te seetlu nañ ci foire yëpp. Dakar bu ñu demee ñooy ñooy retaaral yeneen foire yi ba pare dañu bëree ay xar yoo xam ne ñooy gagné concours yi mais nag daan na am ay foire mais foire ci dimension bi mosu fay am donc moo tax tey man demee am fierté am mbégte première édition bi bu nekk HLM donc vraiment liñ ci yaakaaroon mu wes suñu njort vraiment ñu ànd ci benn équipe bu dynamique ay équipe jeune ay xale lañ ci àndal mais ay xale yu dynamique jeune

Euh, Pikine waay am seen foire mu nekk quatre pôles. waaw quatre pôles ah. donc Rufisque bu defee foire am Kër Massar daf foire am Pikine Guédiawaye daf foire am daf foire am je crois que loolu ça suffit largement ci année bi dina permettre ku def sa foir si mois après keneen kii dina mën a def foiram am ci.

parce que y a un interlocuteur valable pour l'État. état bi wax ak ñun donc c'est moo ñu ne dañuy yoon je pense que association yi des war nañu suivre. Après, il indi a ruptures yu sur le plan organisationnel ñu ngi koy démarrer nag des fois mun na am ay tuuti quoi ah, mais c'est normal pour une première mais on rectifie en cours donc di ci sant yàlla bu baax ça se passe très bien macha allah loolu ngay wax dama la ciy dolli ne non seulement sax mais xar yi dañuy sonn borom bergerie yi dañuy sonn mënuñoo année bu nekk ñu dem 4 5 fois

Nous sommes démarche de la démarche parce que nous nous avons dañu association pour organiser une foire Nous sommes contents. Nous avons kontaan nous des il faut ñu accompagner aussi satisfaction pour nous la ci ñun. Hmm. foire toutes les générations confondues ñu dajee la première la génération intermédiaire et la nouvelle génération. donc c'est ce qui fait la charme de foire départementale de Dakar. grand kontaan ah. naa. a waaye nag dama ñëw fekk benn maal bu rafet fële bu ñuul ñu fekk fi trois box yoo xam ni saa waay euh, doy na waar. Euh, tey euh, lan nga indil gars yi. xam nga comme li mu la doon wax. ñi may indi trois box yëpp kenn mosu si ñëw foire. benn femelle rek moo fi mos a ñëw foire mooy femelle bii. ana moo moo nekk ci moo ci mooy bële waaw. dama nekk en état waaw puissance. puissance waaw. xamee moom laa ba may jël nag. waaw moom rek moo fi mos a moo mos a ñëw foire lu fi des yëpp mosuñu ñëw foire tey sa yëpp ñu ngi kër ga. macha allah lañ juddoo seen yaay fa lañ juddoo comme lu ma la koy wax seen maam yi fa lañ juddoo. macha allah voilà donc sant yàlla bu baax a baax. moom nekk fële ànd ak benn bu ñuul boo xam ne. voilà ak yeneen famille. waaw maal boobu mooy kan. boobu mooy moos. moom taawu Kaya moo ko jur. bu selli. Eh, bu selli lii. Ah. donc Kaya premier taawam. xam moo tax mu niróo Lamtoro donc moom mooy jumeau Lamtoro. jumeau Lamtoro. voilà mooy jumeau Lamtoro parce que ñoo bokk lu bokk. yaay lu bokk niroo. magu la magu lam tooro moo ko jur. amaa wax laa ne bokk na dara lam tooro. magu lam moo ko jur moo ko jur. donc muy taawu Kaya di Zabès. Zabès Kaya moo jur ak Sawu Dieng. Sawu Dieng doomu macha allah. Oh. donc Sawu Dieng nekkoon na ci abukan si la tëboon si la kii Kaya tëboo foofu. mu am ci doom bu góor doom bu góor bi nag jotul yàgg si selli parce que daf ko teel a jaay bi mu amee 3 mois la ko jaay. jaay booy booy Saliou Saliou jaay ko suma benn xale bu tudd Ibra Fall. Ibra Fall boobu nag moo juddu lu moos. ñaata mois. mi ngi ci 22 mois. nga waaw moom moo recruté ko ci moom moom yaayam doomu All Black la. ba pare surtout Birame Ndiémé la aussi. moo tax mu am ossature bi am masse bi mu am nii quoi. xar boo am nara am doole la macha allah nañ ko bàyyi. am ci yow est-ce que da koo yàgg am wala fa. si mi ngi fi bëgg yàgg parce que doomam moo jur moo jur añal bi ah. moo jur añal bu noir bi. moom moo ko jur te am na ay doom yu doy waar na kër ga waaw jur na fa ay doom yu mucc ci ayib quoi donc beneen maal bi aussi ah? kii mooy caporal doomu requin la di rakk ci Kalachnikov voilà moom tamit euh, bi mu ko dugalee yàggu fa noonu parce que man dama lay wax ne chaque chaque deux ans damay dugal ay maal yu bees black bi ñëwoon Adam ak Rudis ñoom ñu ngi kër ga Rudis moom joxe naa ko doomam laa indi Rudis moom laa indi woon sectoriel Adam moo jur jeune mâle bi jeune bi mooy doomu boy Dakar bi. ok moom ñaata mois. moom mi ngi am 6 mois. macha waaw mi ngi am su Black ma ma nga kër ga. mais indi naa ay doomam. Black mooy Abu Bilal beeg Masayer bi. moom laa yóbboon Adam. di passé donc moom ma nga kër ga ñëwul ren. donc day ñuy yeneen xeetu xar yu bees. donc pour yeggali liggéey bi daal waaw. Euh, champion bi ànd fekk bu rafet bi tamit. boote bi kat moo ko jur Black moo ko jur. bi ga moo jur Black waaw bi nekk kër ga moo jur kii. moo jur tëng yi ñaari tëng yële seex yële black moo lañ jur ah. kii moosul moo ko jur kee tamit sama beneen maal boo xam ne ma xuseel ak jogo yi résistance moo jur añal bële production moo fi nekk lépp waaw samay production la kii juuf yi moo ko jur mooy tëng boobu di génn noonu borom boobu weex waaw boobu juuf yi doomu Picasso bi nekk Wakaam moom moom moo ko jur li yëpp kër ga lañ doo daal puissance ni ngi toll ci ñaata portée deux portées xam nga bi ñëw Adam moom taawam laa àndal saa mooy tëng bi tëng culul bi puissance moo ko jur mooy taw puissance deuxième portem laa indi woon Adam. mais joxe naa ko quoi. macha allah fi mu nekk mi ngi ëmb troisième portem. macha allah oui. kon instant bi puissance nga liggéeyee ak sa chapement bi. non ma non non femelle yu mag yaa ngi kër ga ñëw ñëw. donc inu ma femelle yu mag yi quoi donc xale yi rek laa indi ñu ñëw parce que dañuy ëmb ba diis ak yooyu ñooñu mënuñu ñëw. donc euh, tey euh, euh, femelle yi mu àndal yéen femelle la say production la wala ay recrues. waaw kii kii Yago Mbaye la Yago Mbaye moo jëloon deuxième performance auteur Tëngéej waaw. Ah. donc euh, moom ci Djibril Wade laa ko jële suma xarit Djibril Wade suma grand. moo ma jox famille Yago Boy moo jëloon deuxième performance auteur. mais moom it mook sama maal bi ñoo bokk pap mook Black ñoo bokk pap rakku Black la. kii. waaw borom collection bi. kii doomu capitaine la capitaine aussi mosuma ko indi foire. moom sama maal la woon mais joxee naa ko quoi. doomu boy taala la moo jur kii yaayam nekk doomu boy dakaar bu ñuul bi waaw bu ñuul bi doomu gànjool la. gànjool doomu candeela la moo ko jur kii. doomu waaw doomu teg bu ñuul bi am na doomu Bachir bi nekkoon ci Omar Sow jëm ci yàlla di koy ñaanal yàlla xaaree ko àjjana moom moo jur famille bi nekk moo jur famille bi nii macha allah mhm. kon daal bi loolu la mhm. ah macha mu nekk lu rafet mhm. euh, tey lan mooy message bi ak euh, adresse beeg euh, lan ngay wax tous les éleveurs waaw di am kontaan ci yow moom wax dégg yàlla wuy si bu ñu wuyu si parce que woote ni ñi wuyu si la dafa neex waaye ñan ñoo la wuy si aussi tamit am na dafa am solo c'est la crème de l'élevage ñoo ñu wuy si man nag bi ma ci gën neexal mooy mag ñi nga xam la première génération bi nga xam ne vraiment defal ñu honneur déplacé wu pour la première édition parce que première édition dafa xaw a metti parce que day nekk projet boo xam ne nit ñi duñ ko gëm parce que xamuñu fan lay mujjee ak nu muy men mais dañ ne ñoom ñëpp de manière spontanée dañ ñoo répondre ñu massivement docteur Alioune Sarr ñu ko ci gërëm bu baax parce que ñun ñoo ko génnee mosu daanul génn ba ma gisee euh, boxam dama dama ni waaw kon foire bi nag beneen affaire Ousmane Ndiaye obélisque ay 2000 ban année la obélisque la gëj genn momit ñukay wax mention spéciale Gorgui Ousmane Ndiaye. Jibril wad mom luma nek mom daf ci nek Djibi wad mom suma nit la luma nek nekk da ciy nekk. donc ñom mam Gor la ñi ngi fi donc ñom Beydi jaw ñi ngi fi wax deug yalla retour pa Mansour Mbodj mi ngi fi donc ça fait plaisir nga woote édition ñooñu ñep ñew bu fekkon ñom kessé fi nek dinañ xawa dinañ xaw foire la sax mais dinañ xawa jaxlé mais bu fekkone ay xalé kott tamit ñofi nek dinañ xawa jaxlé mais nak symbiose bi am entre les générations ça qui fait le charme de cette foire là donc ñi ci sant yalla bu baax baax di ci gërëm nak euh, xalé yi nga xam ñom lañ ci andal moy le président de l'ASF Cheikh Sadou Sagna ak équipe bi mu andal nous sommes présents président Assane donc sommes euh, sommes pour ne citer que cela mais nous sommes tous leen di mais aussi euh, di un mon chapeau à Pape Gueye donc il a fait un travail remarquable de foire bi wax deug yalla nelawul beccou gontul lepp daf ko ci foire focus ci foire bi momit fi ñun contane nañ ci mu leen kontaan nañ ci moo tax yàlla suturaal ñu tey jii ñu am ndam bi ñu am. ma leen ciy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm nag les exposants. ñi nga xam ne dañu ñoo déplacé wu. di gërëm réseaux sociaux yi. macha allah di di di gërëm ñëpp. yow tamit moom. xam nga ñoo far. far dañoo yàgg. donc yàlla nañu yàgg di daje ci ay foire tamit. amiin waay am naa contenté bu mag. tey recevoir la encore. pour une fois ci bergerie Baye Gaynde. kontaan naa man maa gën a kontaan. ba ñu duudu boole ba léegi ma ak yow. Euh, macha allah dañoo mel ne ñu xamante bu yàgg.

kii mooy 16 15. 16 15 ñaata mois. 6 mois. incha yaayam nekk doom booy Dakar.